asalaamaaleykum les amis internautes ñu ngi leen di siyaar di leen bëggee ah di nuyu bépp euh, internaute bu fi teew rek ñu ngi leen di siyaar tey nag ñu am invité bu espécial ba nga xamante ne kenn du ko présenté ci réew mi muy Omar Cheveux Omar Cheveux nag bu buñ ko waxee ñëpp xam ko ci wàllu cheveux ah tey moom lañ seet si war a waxtaan ak moom omor ñu ngi lay siyaar. waaw sama gars yi maa ngi lay demee bu baax. Mhm. di leen euh, ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne namoon naa leen nag mais di leen souhaiter bienvenue ci the king of the king nuyu na leen bu baax a baax a baax a baax. waaw comme gannaaw bi ñu la nuyoo nag dañuy dañuy xoos ci waxtaan wi euh, d'abord kan mooy Omar Safo. jaamu yàlla la bu yàlla bu xam ne xam na fi mu juddoo ah teg na bëtit fi mu jëm xam ne yàlla moo ko fay yeggale si loolu dong la ne muy jaamu yàlla boo xam ne ndongo daara la jógee si daara ji doon naka yàggu fa jaar si ambulant jógee si ambulant ba xëy taxawal entreprise am tuddee ko boppam ak la mooy jaay muy Omar Sow kooku daal bu ma la bëgg a tënkal si tënk daal kooku mooy Omar Sow nga toll nii ah dem ba dëkk bi est-ce que dafa am lu nekk ci ginnaaw Omar Sow wala déedéet. lu nekk ci ginnaawam te amul daal lu nekk ci ginnaaw yàlla suñu borom mm-hmm. ndax moom laa yaakaar te moom lu ma dugg it moo ma siy fekk te lu ma jënd moom ma si jénne kon du ma ne am na am amut ko ne sama ginnaaw ankay yàlla moo ne sama ginnaaw moo ne sama kanam te moom dong laa doy loo fois dëkk bi ngay wax yàlla dong moo tey dëkk mais nag ñun lu nekk di yëngu dañuy am gëm-gëm boo xam ne dañuy gëm toujours ne ñun kuñ si mënul ku ne mënoo ñu dañuy fexe toujours di nekk leader ndax den ko tarbiyu encore une fois den ko ambulant plus de 9 ans ambulant jaay mbuus jógee si mbuus ñëw ambulant surveiller plus de 9 ans ba xëy taxaw si suñu entreprise kon xam leen fu ñu jógee d'abord fi ñu jëm nag teg neen fa bët mais yàlla lay neex mu yeggee la ñu fa doomu adama du ne xam naa fi ma jëm fi nga jëm xamoo ko ndax boo xamoon da ngay dem rek ne képp yegg fa mais yàlla suñu borom moo lay yeggale fi nga jëm yow nag dangay teg bët fi nga jëm di ñaan yàlla mu yeggale la fa ba li nga bëgg ak sa mbébét yàlla sottal ko voilà. mais tey dañoo for ci wéewu bay ay nit ñuy ruumandaat ay wax yu sew ci suuf yu ne tey Omar Chauffeur bu tolloo fi mu toll dafa am ay lobby yu ne ci ginnaawam wala dafa am ñu koy financé ñi nga xamante ne ñoo tax ah, Omar Chauffeur daal daa am lu muy dox am fu mu jëm loolu tax mu toll fi mu toll nii yu bëri di ko wax. dërëmu nit wala dërëmu banque. dërëmu mhm. wala dërëmu banque. wala dërëmu société mosul jógee si kenn ñëw si Omar Sow man dama tàmbali si ambulant cinq mille francs laa tàmbalee di jaay mbuus biñ marché asalem jaay naa mbuus bi de cinq ans six ans. Mhm. dem ba ñuy commencé aaye ñuy jaay mbuus di ko interdit ma commencé boole mbuus yi ak yeneen bi may jaay mbuus yàlla defoon ne métti woon na mais neexoon na li tax ma ne métti woon na ndax tout début est difficile li tax ma ne neexoon na fi mujjee moo neex ndax yàlla yenentu yàlla moomee sax bi ko yàlla di yónni dafa am fu mu ko awale te mënoon na ko awale yoon yu gën a neex mais ku bëgg ak wolof danaan faw nga ñeme kaane ba tax si loolu laa tàmbalee jaay mbuus ba si yàgg ma dugg commencé rango ay serveur di jaay loolu def naa ko plus de cinq ans la ma si am ma jëndee ko moto ñëw di rango di jaay ba 2019 may taxawal sama entreprise su bopp entreprise bu ma koy taxawal loolu yàlla tegoo si loxo ak samay ñaani way jox ndax bi ma ko bëggee sama yaay laa njëkk oo ko ñaanal ma lii laa bëgg mu ne ma bu dee ñaan doo nga tax a yegg nit fa nga jëm fa nga jëm di fa yegg te ñaan yooyu moo ëpp lépp loo mën a gis ba fii may waxee yow daal du banque du doomu aadama du kenn koo xam ne mën ngaa wax ne may jàpp tey si Omar Sëba ku dul yàlla suñu borom amut li ma yox maa ko man maa ngi sant yàlla bu baax a baax dama ko tarbi ba yàlla jox ma ko pour man nag yoxuguma dara ndax si damay damay soog a commencé waaw ndax ndaw lépp boo xëyee sa jour ak jàngat la war a nekk si yow ba ëllëg ngay mën a doonee maître ndax tey mën nga di liggéey foog ne yaa nga sa fekk nekkoo sa yeggagoo sa fa nga jëm te nit ki pour man boo bëgg am réussite sa àdduna mooy loo def tey fàtte ko jàpp ne defa ko pour nga mën a nekk leader fi nga jëm te si yoon boobu kese laa nekk nga ñaanal nag bu baax baax baax baax nekkuma si leneen si loolu kese laa nekk kàddu gi rafet na ndax am na xale yi nga xamante ne ñu ngi dégg Omar Sow wala ñu ngi gis Omar Sow bëgg mel ni moom kon dinañ xam ne Omar Sow am na fu mu jaar ba toll fii ñu toll ñu xam nag bu ne Omar Sow sa digganteeg Wally Ballago Seck mu doon diggante bu jege naka nga def ba xamanteeg waali wala foo jaar ak Wally ba toll foog moom nga xamante ne lépp lu muy def danaan Omar Cheveux moo jiitu Cheveux yi li ma la ko waxee boobu maa ngi marché SLM Wally li ma booleeg moom du Cheveux du commerce gi nga marché SLM googu ma tudd la demal biir marché SLM nga gàddu sa micro nga laajte kan mooy Omar Cheveux mhm. commerçant yu fa gën mag te li may wax damay tudd ay tur sëy na bu dugg bii bitiki sëñ Babacar wala nga dem si Ousmane si si Jasneer wala nga dem si ñoom Seydou Daabo wala nga dem si Lama boutique wala ji création bi nga daan dégg ñoom ñëpp leen daan jaay mbuus demal marché HLM nga gàddu sa ngay dox di laajte kan moo amul sa dina la wax ma may kan waale bi ngay wax nag bi may xamante ak moom boobu damay wutoon nii ndax yàlla xam na ne yàgg naa di nekk si liggéeyam te moom sax amuma wallaay azim bu maa ngi ambulant di jaay mbuus bu ma jaayaan mbuus mu war a tëgg akapes ma bàyyi lépp lu may def dem akapes fekk ko fa bu fu mu war a tëgg ba si pénc mi fu mu war a tëgg fu ne ma dem fekk benn jour mu mu war a tëgg akapes benn jour après ma ñëw taxaw mu gaare otoom ne woo ma booy bee mu ñëw mu ne yow yaay kan ma ne ko man maay mm-hmm. mais Omar Touré laa tudd nag mais Omar Waly leen may wooyee mu dama la gis chaque jour wax dëgg yàlla yaa ngi si liggéey bi di si jàpp ma ne ko waa loolu la mais defuma ko nag pour dara parce que man du ma déglu musique lan déglu mais sa musique dugg toujours dama koy déglu boole ko sama bopp n'est-ce pas ndeysaan mu reetaan après mu taal otom boobu yow ma sa téléphone mm-hmm. mu taal otom dem noonu noonu noonu noonu Euh, DJ Boubs dëkk Assane Grand man ma dëkkoon Grand Yoff chaque dimanche ma daan dem kër DJ Boubs bu ma fa demee dajee fa ak moom relation boobu leen xamante te nee naa la boobu maa ngi jaay mbuus mu fekk ma marché asalam sagal ma fekk maa ngi ambulant mu am fa benn concert bu muy tëgg mais si biir concert bi la ma yëkkati wéy ma mm-hmm. boobu kenn xamuma woon mu wéy ma marché asalam bët set ñépp naan jaaykatu mbuus bee la wàllu sekk doon wéy jaaykatu mbuus bee la wàllu sekk doon wéy jaaykatu mbuus bee fu ma dugg si marché SLM nee na ma ma nga ne moom jaaykatu mbuus bee la wàllu sekk doon wéy macha allah kon loolu du tey démb la sama diggante moom démb la fépp fu mu mos a nekk it fekk naa ko fa lépp lu mos a dugg yi maa nga sax te nee naa bu ma koy def boobu miinante gun suñ jëmm yi miinantee woon ba tey yàlla dafee gën a jàpp suñu connaissance man ak moom moom it mu doon ni koo xam ne ku man nitam la en fait depuis boobu léegi bàyyiwu ma jàpp ma di ma gëstu si li ma nekk ak lu ma nekkul lépp moom mu ngi si amul lenn lu may dugg suba ba ngoon te woowu ma ko waxtaan si ak moom wala ma dem ba kanam waxtaan si ak moom ba ni may ubbee sama bitig bi 2019. dama ko woo téléphone ne ko ma ne am lu ne woon sama xel mu ne ma lan la ma ne ko dama bëggoon a ubbi boutique marché euh, Zinc. te dégg naa centre commercial boobu yow yaa ko inauguré mooy bu Ousmane Fall mu ne ma waaw waaw waaw ma ne ko dama fa bëgg a ubbi boutique yàlla def. ma ñëw 2019 la ma amoon ma dajale ko boobu maa ngi fay sama bopp chaque fin du mois 500000 am benn commerçant di jaay di jaay ma dem si Goro Mbeng mu ngi en face pharmacie le président Senghor ñëpp xam nañu commencé SLM ma ñëw ne ko dama bëgg chaque fin du ma fay sama bopp 500000 nga ma koy jëncal góor na ma yow li ngay wax ni da ma ne ko manuma ko mais ma ne ko sama bopp mu ne ma acca maa ngi fàttaliku le août la tombé lool ma ñëw yëkkat 500000 jox beneen weer bi ñëw ma yëkkat cinq cent mille jox ko muy bind mu ne ma est ce que xalaatoo pour ñu yóbbu ko banque ma ne ko déedéet man wóolu naa la noonu laa commencé di fay sama a ko ñaata laa am mu ne ma am nga fi onze millions man am leen la ma la ma jencoon capital si loolu laay génnee woo ko ne ko dama bëgg a fi ubbi boutique boutique bi ñëw pour su ndaw la woon ma ñëw jël boutique bi loué ko tàmbali si Oumar Sëfa gi jolli yàlla teg si loxoom ñaan bu nangoo sonal boobam ba tey tey Oumar Sëfa doon chef de entreprise say sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. mais ñu bëri naan Wally Ballago Seck daf la financé ba nga toll fii nga toll ba tax na sax am na yeneen looy waajal lu neuf Wally moo ci teg loxo ba affaire yi sotti ba mën a toll fii. na lu ma la wax sànq si ginnaaw. Mhm. man ko dul yàlla suñu boobu mosuma ma financé dërëmu doomu adama mosuma ko lekk dërëmu banque mosuma ko lekk mhm. sama yaay bi ma jur. 700 francs laa fàttaliku dama mos a lekk si moom. billaahi wallaahi taala te gàmmu la tombeel du ma ko ma ko sama yaay bi ma jur. 700 francs laa fàttaliku man. lu ma lekk si moom. sama yaay bi ma jur. walla li ma defal moo ëpp finance. ndax yëg-yëg rek doy na sëg. respect bi doy na sëg. li ma defal su ma doon xool nan la ko koy fayee dina ëpp sa finance. ndax man ku ma jox xaalis lu ma mais ku ma yëng moom yëngal. te damaa yëg. waale du sama xarit dama koy wax toujours mais waale du sama xarit sama mag la sama conseil la boutique bi may ubbi almadi à part samay waajur moom moo ko njëkk a yëg dama toog woo ko ne ko dama dama ñu waxtaan ma moom téléphone ne ko dama bëgg a ubbi boutique euh, almadi mu ne ma ah bon ma ne mu ne ma fan si almadi ma ne ko diggante see kacaar ak galet ndox mu ne ma c'est bien ça te dafa am benn wax boo xam ne moom moom moo ma si gën a poussé en 2017 bi ñuy tëgg euh, CICES si la wàll njëkk a tëgg CICES am benn discours bu mu yëkkati woon ne yéen franc-maçon yi bu ngeen gëmee seen bopp xam li ngeen doon lépp luy baax si dëkk bi yéen a ko moom loolu moo ko waxoon am naa moom fàtte ko mhm. wax jooju bokk na si li ma gën a yokk jom mhm. wax jooju bokk na si li ma gën a yokk jom bi ma toogee xalaat ne pourquoi pas Omar Sène parce que li doon sama rêve yëpp man sama àdduna mooy dama doon rêve di ñaan yàlla ne ko dama bëgg bi yor zoré yi ñun may Sénégal Omar ko Sénégal man dama waat sama borom na ko fépp fu Brioche Dorée am Sénégal Omar Sèvre dina fa teg tànk dina fa ubbi boutique te loolu laa ñaan yàlla mënaguma ko nag mais xam naa ki ma ko ñaan man na ko mooy suñu borom te gëm naa ne dama ko defal bi ma toogee waxtaan moom ne ko dama bëgg a ubbi boutique almaj mun na ma demal mhm. Omar mel naa ko naa mënuma bu dugg si loo man dugg si loo man mhm. man loolu feextale si man encore une fois mhm. fan la ma tegtal ko fan la mun na ma demal wallahi hazim man may ñëw ma ko barki aw mu ne ma demal foofu baax na milieu bu baax la ñaanal ma si bi ma koy waxee yàggut si la ñëw si boutique bi na ma demal nga jël boutique bi wax si wax joo xam ne toujours man toujours dama naan wàlle am conseil di nga réussir sa àdduna parce que man toujours damay bisu nga ne dama koy wax dama ko man wàlle benn affaire la ma neexee man a moom dama dama bokk jikko si côté boobu mooy lu muy dugg rek den mën na ko wala mën na ko te man dama bëgg loolu si góor gis ne lu naan man na ko pour man boo si duggee échec la li ngay dugg am si résultat pour lu ñëpp taxaw ne mënoo ko te wàllu défi boobu la am defi boobu doon lu man neex si moom encore man sama adduna aw ma si idole wallaahi yanzim lii may def dama ko jàpp ne maa man ñëpp ma si idole sama adduna aw ma si idole man doo seen kenn ne Omar Sall mooy kii mooy idole Omar Sall mais moom dafa am loo xam ne ay jikko loo xam ne qualité yoo xam ne dafa neex si moom mooy dafa doon nit koo xam ne dafa am. dafay lancer défi. den naan lii waale mën na ko waale dugg si loolu yàlla teg sa loxo loolu dama si jàngal lu bëri si àdduna moo tax toujours dama naan ma booy dugg booy dugg si loo dugg si lépp loo xam ne dana mën a ko dugg si si loolu la yàlla di fekk dimbale la loolu dafa defal sama àdduna lu bëri almadi gi bu ma fay jël bi ma si waxtaanee ak moom daf ne ma jëlal almadi ku ne xam ne dafa nekk place yi dafa seer c'est trop mais pour man au moins bu bëgg doon un quelqu'un dans ce pays il faut mu def lu kenn defut. yaakaar nga ne li nga amoon ma zeng wala ñëw la dina ko am ndax ma yi mu toll nii di traversé maman yi difficile. xaawu ma ko si dara. wala wala xaalu ma ko si dara gis nga jaas. Euh, wallaay azim sama diggante ak moom du ñëwal. Mhm. waale bu ma ñëwalee ñëwalu ma boppam la ñëwal. Mhm. man su ma ko demalee demalu ma waale mais sama bopp laa demal. Mhm. ndax man pour man yëfu waale sama yëf la. pour man it wàlli sama yëf yëfam la wàlli xaaru ko si dara ndax bëgguma ko sa teg coono mais boutique bii fam tàmbalee ba fii dara ëmp ko si man leex na ma ne saa yu mën na ko jugal mu jóg ndax loolu may na ma ko si boppam moom su na ma jugal damay jóg ndax jikkoom moo mel noonu dafa man nitam wala en dafa mën nitam en fait loolu bokk na li ma gën a neex si moom en fait gi nga ñëw bi mu ñëw Pikine nee na la ajjuma laa ko yëg samedi waa ñëw fi ajjuma laa ko yëg samedi waa li ñëw Pikine almadi la ko sos nee la waxuma inauguration bi de la ko na ko loolu dinañ ci ñëw waaye Wally Ballago Seck jamono juñ toll nii euh, mu nekk sa mag nekk sa xarit du leen réeroo ci dara mu nekk ci maman yoo xam maman yu difficile la ba nit ñi naan day bàyyi woy loolu noonu koy dundee maman bi yow mi ko jege kan moo ne day bàyyi woy li ñuy li nit ñi di wax lépp dëkk bi àdduna bi yëpp moom la ñuy wax. te image am lañ gis image bu bu daw yaram image ba nga xamante ni koo gis rek day jàpp ne gan gi dafa dafa dafa bëgg a bàyyi way. non non li ma question bi lay wax de. Mhm. Wally ne dafay bàyyi réew mi yëpp yow ñàkkul yaa ngi dégg lépp ci réseaux sociaux day bàyyi way day bàyyi way loolu noonu lañ koy dund moment bi. man xam man bu may mhm. wax. Mhm. tollu ma si Wally fu may waxee dégg naa. mais du nga gis yow. waaw. Omo moo ne. moo ne lim gis ci image daw na yaram daw yaram xam ne li muy wund mooy ku nar a bàyyi musique Wally est-ce boppam déedéet ci xam dara yéen ko jege Wally wéyloowul boppam bay bàyyi wéy du moom mooy wéyloo boppam bay bàyyi wéy xam nga y a des yoo xam ne am na lu ma si mën a wax ndax Wally en fait fu nekk tegu fa boppam nit ñi ñoo ko fa teg lim doot defu ko boppam nit ñi noo ko def te Wally xam na bu baax te jox na nit ñi respect encore te jox na nit ñi caax Wally moom day bàyyi wéy bu ko defee ñu def lan defoon maamam ak ah, ah maamam den na ko wéyal lu mu def <laughs> yaa ci xam dara waxal bu ñu waxee maamam wéyal lu mu mu bañ. daa bañ ñu dagg bopp bi. ñu tàqale boppam ba waaw moom boo ko defee ñu def ñu defoon maama ma. mais nag moom tey boole li muy wund ak image noire yi muy génn est ce que lu waroon na def loolu Faramareen di xaar waali mu dellusiwaat ak jàmm mu commencé di def ay émission di génn ci image noire ba ñëpp di tiit seede yàlla. saway jaas waali mooy Sénégal. dëgg la soo bisi Sénégal bu dee 100 la waali mooy jël 99 sur nangam sa laay wax. nga teg loolu fan. mais yow xam nga ko yéen xam ngeen ko <laughs> yéen xam ngeen ko jow ngeen may posé gis nga sëñ bi. mais est-ce ngir far loolu yow. man dépassé na fu may faree. Mhm. déedéet man du ma far ba du ma wax dëgg. yàlla def ne samay dëgg bu wàccee su ndoddal Muhammad na ngeen ko teg si kawam Muhammad moomu ko man yàlla maa ko moom mais naa fu may faree si wàll wala may far si nangam ak i nangam. kóllëre nag dina am sama diggante moom mais du ma ko faral jamais dama di. dama bëgg ñu xam ne musique gu Sénégal musique gu Sénégal kum neex kum naqari mu si loxo Wally Seck léegi nag man loolu duma ko wax yéen yéen a at Wally kañ la gëj tëgg. yàgg na mais am na ñuy tëgg am naa artistes yuy tëgg. waaw ah yow de <laughs> ko de <laughs> ah waa Sidi yéen a ngi fi. Ah, tamit tëgg na. ah waa waa léegi. Wally xam man bëgguma ngay tudd Wally di tudd keneen. Mm-hmm. xam nga nag bu ngeen tuddee Wally tudd keneen dafay mel ni da ngay dëddale da ngay da ngay dendale Wally ak keneen Wally ni ngeen ni ngay tëkkale Wally ak Wally Wally du ñoom ñoom duñu Wally waxuma ko nag Podor mais yéen ñi may posé question yéen a gën xam ne Wally méngoowut ak benn wéykat te yéen ñi may pose question yéen a gën a xam ne seen vie yi Wally ko yokk bu ñu waxee ko yàlla tax musique gu Sénégal. mais foo teg loolu. artistes yu bari nekk fi ndaanaan yi toj réew mi nga ne Wally moo yokk suñuy vie ñu ñuy liggéey avant Wally. Wally kañ liggéey da tëgg dama leen laaj. man de su waay Wally man la yow ñëw fa mujj. Mhm. Wally dafa tëgg samedi samedi bi day si yaayam génn àdduna. am na wala amul. boobu la Wally gëj tëgg. Mhm. ñi nga xam ne si son lay liggéey. Mhm. bu ñu tëggee baaraamundi ñu jël son yi dugal ko ñoom liggéeyatuñ bu Wally tëggee bokk ñu jël son yi dugal ko. ñoo ñu tëggatoon yéen si yii mooy Dakar Live ak Dakar Buzz ak nangam ak nangam chaque samedi chaque dimanche yéen ñu yee si incroyable nangam ak nangam ba mun di nangam ak kañ ngeen ko def incroyable kenn laa ko gëj a si yéen ngeen bind ko kan. ah mais moo mais moo am ñoom maa leen ñuy yéen ñëpp ay incroyable ba mun nangam kañ laa koy dégg depuis Wally teg micro ba léegi dégguma ko fet depuis Wally teg. micro ba léegi dégguma ko yéen bu yeboo ngeen war wari jàmm ndax jàmm yi wàllu mooy seen jàmm mais dama la bëgg a xamal dëgg te yàlla rek tax wallaahi azim wax bul kaaba waxuma ko pour leneen man wàllu bis bu bàyyee jaay bis bu bàyyee musique man ma bàyyi jaay sa kon da ngay tontu li da ngay dëggal li Omar wax ne bu bu Wally bàyyee musique day dem Burkina Faso. barki Seydina Mohamed saa yoo dégg na Wally mhm. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa saa yoo dégg na Wally bàyyi na musique kay nga dégg di Omar Sow ba jaay bàyyi na jaay Sow. Mm. bàyyi ko alxuraan parce que xamoon lu tax. Mm-hmm. encore loolu da dul question ay Wally bàyyi na musique Wally bàyyiwul musique loolu du question. Mm-hmm. Wally bàyyam dafa liggéey ba xëy faatu. Mm-hmm. am na wala moo jiite woon Ahmed l'Islam ba mu tëddee si lalu dee baat bi mujjee wax dam ne yàlla na tàppe dee. dina ko lan moo tax mu ne man Khalid liñ ma jam si ay fet li ma duu si ay si deewuma ma toog ba feebar ba feebar boobu si la ma yàlla di faatee te deewuma si xare yàlla na tàppet dee exemple laa la jox nag waa lii mu jëm mhm. xam na ko mu nekk xam na ko te wallaahi man mi di wax ak yéen yi amut ku si ëpp wàlli tawhid mhm. amut mhm. xañ na nag ba may wax nag ñii ñii wàlli mi si kaw seen bi la xam mais dama bëggoon tuuti ñu gëstu tuuti c'est kan mooy Ibrahima Seck parce que ñu bëri dañuy jaaw Ibrahima Seck ak Wally Seck c'est pas la même chose mhm. mais dama bëggoon ñu xam ma sekk mooy kan. mais tey moment bi ñu toll nii ah Sénégalais yi di gis beneen image beneen visage ci balaa Ballago Seck moment bi lan lay dund yow mi nga xamante ni mu ngi ngaa gisante ak moom at ana Wally fii Wally dafa réer dafa réer de. waaw parce que parce que yéen yéen umpale Wally yéen arrangé wu leen yéen <laughs> yéen yéen si lu arrangé wu ndax yéen moom bu ngeen sañoon chaque jour wàllu ne dàng waaye sant yàlla nag ñaan bu nangoo boo am sama waay ji ñaan bu nangoo boo am xañ na nag yéen nag bu ngeen soño moom chaque jour ngeen gis wàll ndax tey li may wax rek suuf biir Sénégal gii tey wala yangi muy man muy keneen toujours keek dama koy tooñ ma ne ko xam naa woon nga jënd benn son spécial te loolu maa ngi ko koy lancé mu mu euh, déglu euh, li ma koy wax. mooy lan war na jënd benn son spécial pour commerçant yi Sénégal. tey bu doon élection présidentielle la ngay def sondage ngay dugg si marché yi mm-hmm. wala premier tour lay jàll. Mm-hmm. parce que tey marché yi foo dem wàllu sa kër lay déglu te li may wax yéen a gën a xam mm-hmm. yéen ñëpp yéen gën a xam tey def na si musique Sénégal loo xam ne xale bu ndaw la te wallaahi maa ngi koy wax wala commencé guddi wey. xañ na li may wax dina leen jaaxal. du ma défendre kenn. Ah, parce que moom laa xam kan laa xam wax léegi booy wax si nit day fekk nga xam ko sëñ bi ma wax la li gën a dee man mosuma baale bu ma doonee Omar ba léegi mosuma taxaw bu waat waaye li sekk moo tax ma taxaw bu waat nit booy wax da ngay wax si loo xam man xañ na artiste bu ne dina ma woo téléphone naa jox jokkoo ñoom mais dama ne la di Wally Seck li ma xam si moom xamuma ko si kenn ma jaxal benn musicien jaral lu ko te moom it loolu dafa ma ko wante yéen ñi yéen a seen bët li ma Wally defal ban musicien moo ma ko defal dama leen laaj déplacé wu këram ndax jëmm ji xeebu gii ñëw seet si ko fi yëkkati taa nga jox au lie que man ma jox ko mais moom mooy yëkkati teraanga defalaat ma ma demaat ba këram di ko sant mu ne bu ko fi waxati yow lu ma la defal damaa wax man wala laa xam ne am naa relation ak euh, Momo Dieng c'est mon ami sama waay la mais xam nga nit ki toujours ñii dañuy jaawale dëkkandoo ak bokk kër nit ki mën nga bokk moom koñ te du ngeen bokk man nga bokk moom école te du ngeen bokk classe xañ na am naa relation ak ay artistes dëgg la moom moo jëm sama waay la dañuy jox ko mën a moom téléphone mais dama ne la man bu ma jénnee sama kër di dem soirée soirée Wally Seck lay dem man musique Wally Seck laa xam Wally Seck lay dégg sama rajo bii du ma fi teg keneen ku dul Wally te duma ma déglu keneen ku dul Wally du question dama ko défendre nag mais bal insaan la la naf si basé doomu aadama bu ne yàlla nee na moo gën a xam boppam nit kii booy wax dangay wax si loo xam loo ko wax si loo maîtriser tey bu ma boo ma boo ma laajoon si keneen ku dul waali lu ma si waxi damay tooñ ndax xaw ma ko. dëgg mais jëmm jii bu ma nit laajoon si moom dinaa sawar pour wax si moom. Mm-hmm. parce que nag koo xamoon na koy def nam lay defa tax te nag sama ànd ak moom du tey. Mm-hmm. jamonoy boo juddoo amagut de. waaw maa ngi fàttali ko jamonoy Walfu TV ba muy laajee fay papaam mm-hmm. di wax ca ba naan ko gisuma sama baay booy. suba maa ngi toog. loolu yàgg na dégg la ma la wax loolu yàgg na mm-hmm. du tey kon démb la kon bu may wax damay wax ci lu ma xam taman nag bu wax jeexee dëgg des man chef de entreprise la sama liggéey rek laa xam xaw ma leneen mais sama liggéey képp ku ma si fekk di ma jàppale mm-hmm. dinaa la teg fu kawe lii nag moo tax ma teg wàlle fu ma tegul kenn Wally mooy si lu ko wax xam nga. Mhm. yéen toujours li lay trompé mooy fu ngeen gisee Wally si mbedd ngeen ko gis wala ngeen gis ko si seen boo ki dem dama toog man en fait bala may wax si Wally sax si soxna Aïdara laay njëkk a wax. Mhm. man dama naan Wally yéemu ma man soxna moo yéem. Mhm. boo ki dem dama toog ma ne waa am ku ma doon waxtaan ma ne ko yow wéy Wally Seck wéy kii nu mu tudd Awa Baba Thiam ma ne wéy bi est-ce que soxna moomu ko woon wala jël ko tourné ko si Awa Baba Thiam. waaye dama lu tax ma ne ko dama gis man waale li muy wax yi man soxna rek laa ko gis gisuma ko si kanam benn ñaar li nga wax léegi cadre bi nga wax léegi dama lay tontu tuuti gis nga soxna si nit ki pour nga xam ko il faut nga jëflante ak moom en fait mm-hmm. nit ki doo ko xam si téléphone doo ko xam si télévision mais il faut nga jëflante ak yàlla may na ma sens ñett yi jëflante naa ak moom te dinaa toog ak moom it te dinaa waxtaan ak moom kon lu ma la wax si moom rek dama koy xam donte xaw ma lépp déedéet mais dama ne la jëmm ji di wàll Seck nii dana woon a gëstu moom mooy kan pas nu gëstu jëmmi Wally Seck mais nu gëstu jëmmi Ibrahima Seck c'est important wallahi azim li may wax nag waxuma ko pour hasard waxuma ko pour lenn mais ku mën a sonn si jàmm yàlla gis nga yàlla amul lu du jaaman yàlla amul lu du jaaman yàlla boo koy jàmm doo ko jàmm si jëmmam ji ci jaam ñi nga koy jaam te daay dem ba fàtte boppam ndax nit ñi li may wax ni nag xaj na li tubaab naan chaque jour est une mais aujourd'hui bis na ñëw nga découvrir li may wax. dëgg la euh, ñu ñu dëgmal le neuf le neuf lan moo nar a am dafa mel ni jamono juñ toll nii amul sa international nga bëgg ba tax na yaa ngi war a déplacé wu dem ba route des Almadies lan moo fa nar a am le neuf. déplacé wu ma damay yaatal. Mhm. yéen ñii. bu ngeen amoon seen télévision mhm. da ngeen fexe région bu da ngeen am fa correspondant am na wala amut Omar Sèvre du moom moom moom Omar Sèvre mhm. mais kii ñaay ñoo ko moom te damay def sondage chaque un an man dama ne léegi dama jël di son chaque mois de mars ma ubbi boutique mhm. ndax mois de mars mooy sama anniversaire man la 28 mars laa mais dama jël décision son sama liggéey ma ne chaque mois de mars damay ubbi boutique ci kàttanu yàlla bi ma jël décision bi waxtaan si ak sama xelaat sama xalaat jox ma sama xel ma trouvé ko bi ñu jëlee sondage bi nag def ko danoo gis ne diggante Mamel Wakaam Yoff Ouest Foire Nord Foire ñoom ñoo ëppoon demande à ak Mbour Mbour moo ëppoon demande mais bu ñu gisee ne diggante Wakaam Mamel Yoff ak euh, Ouest Foire Nord Foire ñu bëri dañuy demander Omar Saba pourquoi pas mu ubbi bopp Liberté 6 pourquoi pas mu ubbi feneen jege ñu. Mhm. ñu ne comme que bu ñu ubbee Almadi. Mhm. am neen fépp ndax Almadi boo xoolee boo fa installé. Mhm. yaa ngi si xolu Ndakaaw Ndakaaw bu doon jëmm la Almadi mooy xol bi bu doon jëmm la Almadi mooy xol bi léegi ne pourquoi pas kon ñu ubbi Almadi boutique Omar Saba yàgg nañ ko waajal nag mais ren la ko yàlla tudd loolu moo waral nag ñu ñëw ba si xolum Ndakaaw. ñu defal ko client yi lu métti métti dañ koy def parce que ñoom ñoo ko bëgg parce que ñoom ñoo ñu safoo parce que ñun nekkoon pour suñu bopp mais danoo nekk pour ñëw mais dafa mel ni Wally Ballago Seck euh, ñëw na ci bikit boobu parce que man for ci booy ne mu ñëw na fa guddi te kenn kenn kenn yëgu koy loolu yàgg moom. xam nga nag loolu du ma si lu tax. Mhm. man nee naa la boo déggee ma ne la sama diggante ak waale mhm. la may def defar lu ma def du la may toog si internet di ko wax nangam ak i nangam mhm. mais dama ne la. boutique bi almadi waale amul dara lu ko si ëmb loolu nag jeexal na wax ci ay ñëw na fa ñëw fa loolu yëpp c'est pas important mais dama ne la boutique ba almadi amul lenn lu si ëmb waale sekk bu ma ne lu ko si ëmb du xaalis bu mu wala nangam mais dama ne amul lenn lu ko si ëmb dara dara dara dara ba dara boole jox ëmb ko si di boutique bi ni mu débee ba nu muy fin dara ëmb ko si ndax yëg na lépp. mais yan surprise fu mun a xaar. ndax bii bi bi ñëwoon fi mu da nga ko oyofal mais teewul waa li ñëw na fi yenn surprise lañ mën a xaar foofu ci journée bi parce que temps yi maa ngi dégg coow li ci mel ñoom Aba ñoom Pape Cheikh ñoom euh, Bijou ñëpp xam nga Wally mooy showbiz si musique Sénégal mhm. mais commerce bi Oumar moo si showbiz loolu yàlla def. Eh mais dama bëgg ñu xam benn affaire rek. Mhm. Mhm. parce que suñu dese yaay jaaga bi moo taxu ñu pousse mais daanaka liggéey bi pare woon na. nit jaaga du waali waali la juux nàmpal ko si weenam mais du waali kese la juux jaaga suñu yaay ñu ñëpp kon mënuñoo wan ginnaaw ñu ëlbati ko di def leneen si ginnaawam loolu moo waral loolu ñu pousse boutique bi liggéey bi mais liggéey bi daanaka pare woon na finition yi moo desoon le bi dan bu ñu ko jàppee dana jàpp ne mooy délai bu gën mais en tout cas daal li ma mën a wax ak mooy almadi moom lépp loo xalaat bu dee si côté business ko si liggéey ak lépp loo xalaat si àdduna boo ñëwee di ko fekk. ñu ngi ci euh, euh, surprise yi nar a am ci le neuf incha yëpp a ngi koy xaar. le neuf man dama ko jëloon lu simple. Mhm. su ma la waxee mais sama yaay sama mag bisu ngoone daf na ma jour inauguration bi bàyyee ma lépp mhm. lépp luy décoration lépp luy tapis man maa la koy defal mhm. boo gisee ma gën a opté woo loolu moom moo tax. ndax yàlla dama si jàppale trop. dama woon dama intégration bi bàyyi ko sama loxo mhm. lépp luy décoration ak lépp luy tapis rouge man maa ko demal may dalal sa gan mhm. am sama benn jigéen bu nan umu sugu bu nekk New York ko mhm. moom it ma jour intégration bi lépp la fay gan dafa ñëw ak lépp luy personnel dafa ñëw ak lépp luy presse dafa ñëw presse bi maa leen gàddu seen paas ña ñëw maa lay gàddu seen lekk ba ñu ñibbi ah. loolu moo tax nag bëgguma ko bëgguma ko simple lay kese loolu moo tax nag comme que ñoom nag woo neen ma si si guurum soow bàyyi ma ñëw guur soow mi rek Mm-hmm. jox gars yi loolu kese xalaat euh, waaw tapis resort yaakaar naa dina fa am lal fa tapis. waaw tapis rouge bi bisu ngoone 2S mm-hmm. ah. bisu ngoone wax dëgg yàlla maa ngi koy sant encore mm-hmm. di ko gërëm bu baax parce que sama mbir seetaan ma si benn yoon te mosul lekk sama dërëm mais lu ma dugg dina ma si woo jàppale ma immigration bi ñu ko jàppee daf na ma wax ma jour bi ñu koy def lépp luy décor lépp luy tapis rouge lépp luy gan lépp luy mën a doon si àdduna man maa koy gérer bala ñooy wax ndeyum ba léegi dina fa ñëw is ce que yeneen artiste dinañ fa ñëw yu dul Wally ko Seck euh, dama la wax ne la man simplicité kese moo ma si taxoon a jóg simple lépp moo doon sama yéene lépp lu fay ab nag lay doon man dama leen wax ne la du ma ne la A du ma ne la B mais képp ku fa ñëw si kàttanu yàlla di nga gis loo mosul gis dama ne la képp ku fa ñëw di nga gis loo mosul gis loolu moo man Omar Saba maa la ko wax te lépp lu ngay xaar si nit bu ngeen ñëwee fekk ko fa incha mm. mais ñi xaar ñi bëgg a gis Wally balaa ko Seck avant koor gi est ce que dinañ a gis Wally ndax am na loo ma dee man lu lu rëy la nga xamante ne bëgguma ko wax ci internet bi mais nga wax xam nga Wally kilifa la. Mm-hmm. te kilifa kenn du ko joxil boppam bés moom moo ko joxil boppam. ndax ñun mën naa dem bay waaj a am ngànt. moo la tànnal bés bi nag. non dama ne la li ma la wax waxee dafa jeexal ma ne Wally amul leen lu ko ump si si si boutique ba kay jeexal na wax. Mm-hmm. kon li ma mën a xam mooy man lépp li ma am mooy sama boutique muy sama lu mën a doon moom jëmm jooju di wàll Seck pas samay waay jox dama ko si woo jiital ko si te lii jiitaluma si kenn moom laa si jiital dina ñëwum di ñëw nag jour boobu bu desee trois jours wala bu desee une semaine di ngeen gën a xam information yi bu baax a baax a baax mais dama la bëgg a xamal benn affaire caabi boutique bi mu ngi si wàll Seck caabi bi laa wax caabi boutique bi si loxoom laa koy teg te bu ma waaj a woowee ne ma ñëwal nga jël sa caabi bu ma ko jëlee directement si wàllu sec laa koy bu ko ubbiwul kenn du dugg. léegi ñu lay wax nga woo Sénégalais yi wax ak Sénégalais yi euh, ci immigration boobu sa dernier mot. avant ma lay woo ma sant leen d' abord. Mm-hmm. avant ma lay woo ma sant leen. Mm-hmm. ndax man li ma doon la ginnaaw yàlla Sénégalais yi ñoo ko def. toujours maa ngi koy wax léegi Malick. waale li mu doon Sénégalais yi ñoo ko ko may. Mm-hmm. fii doomu aadama mënoo am lu ëpp sa population. danoo am lu ëpp sa peuple te ñun danoo nekk si réew moo xam ne toujours réew mu neex a neex dundee la mais réew mu naqari dundee la lu tax dina nangu sa résultat mais du la nangu sa njumte loolu Sénégal ji koy sénégalais la mais loolu yëpp lu naa la bëgg gi moo tax ak yëg-yëg gi ak yéene bi ñu am si doomu aadama te ma it toujours li may wax rek dama fi nekk pour dab samay bànneexu kii ñaar fu ma woo añ na nag almadi gi moo gën a tuuti samay projet te bu ñu inauguré almadi ba pare ba koor gi jeex da xam ne almadi moo gën a tuuti samay projet ba tax na maa ngi woo ñëpp di wax ne seen doom seen rak seen jabaat seen xarit seen mag seen lépp mooy Omar Seba moo war a ubbi boutique am le 9 à almadi diggante say Katia ak Gelando en face Saveur bi foofu la Omar Seba bu almadi nekk bu ngeen ñëwee lépp lu ngeen bëgg si espace am na fa mën na boutique bi ñaari yoon te lépp ngi si biir incha allah boobu ëppee na boutique bi ñaari yoon. te lépp a ngi si biir incha te loolu yëpp bu ma koy def nag pour satisfaire sama client moo tax ndax am na ñoo xam ne dañuy jóge ba almadi embouteillage bu métti ñu ñëw ko fii am ñuy jóge ba wakaam di fay livraison muy métti kon nag dama bëgg fépp fu sama client nekk ma fexe sampal la fa amal sa li ma wax rek fu bi yos doy teg tànkam si kattan yàlla dina fa ñaata sa ngay may jour bu foofu. Euh, nen dem ba jege parce que xam na am na lu ñuy waaj te nit ki li ngay waaj doo ko wax te yow waxtaan naa si ak yow mhm. après dinaa si gën a waxtaan ak ñoom wàlle waxtaan si ñoom ak ñoom aba loolu dinañ ko tënk mhm. mais du xam nga du du question maye mais dinañ am benn affaire bu ñu teg daal mhm. pour wàccaari immigration te ñëpp dañ ko gis si internet bi incha allah te loolu nag defuñu ko pour daal mais pour pour rendre hommage clients yi rendre hommage ñi nga xam ne homo saba donga moo la parce que homo saba bu ne moom askan bi moo ko fi tegit te ku ñëwut doo am saba ku jëntu doo am safa loolu boobaa man askan wi tegoon ma fi sama poche ma fi nekk damay bëgg toujours nag yenn yu bëri ma koy partager ak clients yi di ko di ko bokk ak ñoom ñi nga xam ne yàlla def na ñoom seen poche daju euh, seen ginnaaw li ma yàlla man loo ma def ko pour ñoom loolu kese la di jox ñëpp rendez-vous le 9 mars incha allah ñoo xam ne mois de mars la judd nag hmm. waaw di yéen presse bi bëgguma si kenn manqué nag te jour boobu incha allah am na lu ma leen defal lu spécial hmm. te ma ko waxee rek ba musu ko def ne ma lépp luy fa bu fa ñëw la muy lekk maa koy gàddu seen paas maa leen koy gàddu. loolu dëkk